ko jooyu xoli foor man ñàkk naa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات yi ñu bëggoon leen indi lenn ci waxi ku tedd ki di Serigne Touba Xaadimu Rasul Serigne Touba xaadalahu laahu yoon wu ñëw jamono lakkum laa fi am defar jamono dellu waaye wii yoon lahum laa fi am Serigne Touba xaadalahu laahu maxtaara lahu mës nañoo laaj Serigne ndax xasida yi mën naa tege ci kaw alxuraan mu ne leen doom de xanaa fu ndey ja ne mën naa nekk ca gannaaw ga war ko sëriñ bi ne xasiida yi alxuraan moo ko jur kon mën naa tege ci kawam sëriñ Tuubaa daana wax dikk leen ma wax leen ko ci wolof ci wolof lañu koy xamee ci jamonoy sancub Tuubaa mas nañu indil sëriñ Tuubaa àddiya ju bari mu jox ko sëriñ Mandumbe ne ko suulal ma ko mu suul ko fii barab bi nekk tey bi sëriñ Touba jullee tisbaar ba sëlmal ne ko Ahmadu xanaa la ma la suuloo woon suuloo ko déggoo yuuxoom yi noonu mu ne ko déedéet Mbàkke lu ànd dikk fa ba fa mu ko suuloon te mooy fii jumaa ji nekk tey sëriñ bi ne ko sullil te dem ba ca gannaaw xàllu jolof nga suul ko fa te dellu si fekk ma fii bi mu ñëwee sëriñ bi ne ko pax mi suulaat ko mu suul ko mu ne ko xanaa xamoo ne asamaan sépp ñaari bunt la am benn baa ngi tiim Kaaba benn baa ngi tiim fii sunu borom subhaanahu wa taala bu lottoon bay wut dencukaay fii nga taxaw la koy def yàlla nag deful koy lott bay wut dencukaay ba muy fàggandikoo ngir ëllëg liy seedes loolu mooy fi la wàccee ahlu badri tekkee mukk te taxañuñ siraat ahmadu lu ngeen bëgg di ko wuti ndara ki ndakaaru diir bu gàtt da ngeen da ngeen rombanteeg moom fii te di ngeen ko faale atteb jamono jépp itam dikk na fi fa jant bi di fenke fa muy sowe dana mujj lu ñu fi atte te dikkuñu fii boobee atte du wéy liggéey bii ma fiy liggéey itam nit dina bàyyeekoo màkk ak Madina ak mboolem réew yi ngir xoosi liggéey bi kon mbokk yi lii na leen indiloon ci waxi ku tedd gi di Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala